لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني نور جناني صف أماني وزد برائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بوكي yi nga xam ne ñoo ñuy bàyyi xel fu rawatina bokk yi nga xam ne ñoo ñuy bàyyi xel ci seen jotaay yóbbalu koor ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziyaare ñu ngi leen di ndokkeel ci weer bi nga xam ne ci lañu nekk muy weeru koor di weer woo xam ne weeru yërmande di weer woo xam ne weeru njëggal la waaye di weer woo xam ne itam weeru goreel jaam ñi ci sawara la di leen yóbbu aljanna mbokk yi xam ngeen ni ci biir weeru koor nag sunu borom subhanahu wa taala baaxee nañu ci genn guddi goo xam ne guddi gu màgg la guddi la goo xam ne guddi gu rëy la motax borom bi subhanahu wa taala waxon ni inna anzalnahu fi laylatil alqadri wa ma adraaka ma laylatul alqadri laylatul alqadri khayrun min alf shahr tanazzalu almalaa'ikatu warruuxu fiiha bi izni rabbihim min kulli amr salaamun xiya xataa matla'il fajr mbokk yi xam ngeen ni saar woowu saar wu màgg la saar la woo xam ne sunu boroom subhanahu wa taala mi ngi nay xamal ni alquran ñoo ngi ko wàccee ci weeru koor waaye ñoo ngi ko wàccee ci guddi goo xam ne guddi gu màgg la muy guddig laylatul qadr mbokk yi xam ngeen ne bu ñu delluwaatee ci histoire ci niko téere yi nettalee muy jëm jooju ñuy tuddee samhun al ghazi bokkoon ci banu israil nga xam ne dadaa jaamu sunu boroom di ko sellal ba ba ñu wax ni jaamu googu buñ ko dee tënk toll na ci junniy weer muy juróom ñett fukki at ak ñeent ak ay weer muy ngëneel lu màgga màgg waaye borom bi subxaanahu wa taala xamal sayduna muhammad sallallahu alayhi wa ne ko ci biir weeru koor defal naa fi sa xeet wi guddi goo xam ne ku ko màggal te sellal ko danga am yoolub sam'unul xaazi moomu yool boobu nga xamante ni moom la am muy alfu shahrin moo tax mbokk yi laylatul qadr di guddi goo xam ne ni ko alxuraan waxee fiiha yufraqu kulla amrin xakim min indina inna kunna mursilin ci suuratu duxaan nga xam ne wax nañu bis la boo xamante nii wala guddi la goo xamante nii sunu boroom nag ci lay settee ñi nga xam ne ñoom ñooy faatu comme ni ko mu fas mufassiruna yi waxee ak ñiy dund ci at mi ak ñi nga xam ne ñoo ciy mucc ñépp ak ñi nga xam ne itam ñoo ciy alku ak ñi ciy texe ak ñi nga xam ne ñoom ñoo ciy tedd ak ñi nga xam ne ñoom ñoo ciy am toroxtaange ak lépp loo xam ne rek sunu boroom namm na ko ci jaam mi boroom xam-xam yi wax nañu ci guddi laylatul qadr la ko sunu boroom di dogale jëm déwén kon guddi la goo xamante ni guddi gu màgg la waaye mu bari lool ay wuute nag ci boroom xam-xam yi am na ay wax yu bare bari yuñ ci wax am na ci ay boroom xam-xam yu àgg ci ne sax laylatul qadr benn yoon lay doon ci at mi am na ñenn ñu wax loolu waaye li nga xam ne mooy li gën a siiw te ëpp te not mooy dañoo wax ni ci weeru koor lay nekk weeru koor googu nag bis yi nga xam ne moom lay nekk itam am na ay wuute waaye danañ ci tegtaloo ay ahadis yoo xam ne yenn yi ñu ngi ko jëlee ci saxaabatul kiraam ridwanullahi alayhim kon daal guddi la goo xam ne mbokk yi guddi gu bari ngëneel la guddi la goo xamante ni nit ki bu ñëwee war na cay taxaw di def ay nawaafilam di jaamu sun borom waaye bu mënee lixti kaaftam mu def ko nekk ca jàkka ja rawatina ci fukki fan yu mujj yi di ca ñaan yàlla itam ak di ko ca jéggulu ak lépp loo xam ne lu baax la rekk mu mu ko cay def ci guddi googu moo tax abi said alxudri radiallahu anhu wax na ni jëlee na ci yent bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ni képp koo xam ne nangay ngay nee na yonent bi nee na nangay ngay ci fukki fan yu mujj ci weeru koor moo tax xam ngeen ni sunu nit ñu baax ni ridwanullahi alayhim bariwaana lool ñoo xamante ni fukki fan yu mujj yooyu dañ koy fonk lool nga xam ne saa bu agsee rek ca jàkka ji lañuy ñuy ba keroog ñu naan suba la korite gi waaye mbokk yi fukki fan yu mujj yooyu dafa jara fonk ndax yonent bi sallallahu alayhi wa nee na bu ramadaan di tàggoo ba ñu agsi ci fukki fan yu mujj yi nee na saddal mi'zara wa ayqada ahluhu ne ñu yent bi sallallahu alayhi bu fukk yu mujj yi mësaana agsi ci weeru koor da daan laxasaayu lépp lu mu doon def rek da ko doon yokk waaye itam da daan yeewaa këram itam di leen xiir ci ak jaamu yàlla ci ak ñaan ci jëf mboolem jëf yi nga xamante ni ay jëf yu baax la waaye jëlee nañ ci sunu yaay Aïcha radiyallahu anha mu wax ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bu ngeen di jeex guddig laylatul qadr na ngeen ko jeex ci fukk yu mujj yi waaye nag ci bis yi nga xam ne itam ñooy bis yu tool yi naka noonu itam ibnu abbas radiyallahu anhu moom la waxoon ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na laylatul qadr nañ koy jeex ci fukk yi nga xamante ni moom moo mujj ci wéru koor moo tax sayyidatna aïcha radiyallahu anha waxoon ni laaj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yow ki yàlla yónni waa bu ma xamee ni guddi gi mooy guddi gi laylatul qadr bu ñëwee lan laa war a wax wala gan ñaan laa war a ñaan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ko ni ko saa bo laylatul qadre ñëwee nangay wax ni allahumma innaka cafuwun tuhibu lcafwa faafu anni mbokk muy ñaan goo xamante ni kenn ku nekk war na koo jéem a mokkal sako itam ak njabootam ñu di ko mokkal nga xam ne fukk yu mujj yi daal war nañ ci góorgóorlu bu baax a baax a baax a baax a baax di jàng ñaan gi muy allahumma innaka cafuwun tuhibbul afwa fa'fu anni yow sunu borom day yaay njëggalaa bi kuy jëggale nga te ku sopp nga kuy jëggale kon nag yal na ngeen jëggal mbokk yi ñaan la goo xamante ni kenn ku nekk war nga koo man waaye sako yi ko sax njaboot bañ man bañ man ñaan gi nga xam ne fukki fan yi mujj ci ramadaan yi nañuy góor góorlu di ci ñaan yàlla di ci boole ñaan yi waaye di jàng alquran lu baree bari suñu ko mënee waaye di saraxa itam bu fekkee itam nekk nañu ñoo xam ne ay jirim lañ tam ñu leen di bégal di seddal seen xol loolu danañ ci am tiyaaba joo xam ne tiyaaba ju màgg la waaye kon mbokk yi xam ngeen lay laylatul xadar lëm gi ñu ko lëm nga xam ne ñii dañoo waxlee ñee wax yee waaye lépp aw yiw la kon daal mbokk yi kenn ku nekk war na ci góor góorlu ci fukk fan yu mujj yi yokk ci ay jaamu yàllaam ñaan ci yàlla ak njëgal ñaanal njabootam ñaanal ay woy juróom ñaanal ummatu islaam bépp sunu borom dafa leen jàmm ak sutura ak teraanga kon daal mbokk yi ñoo ngi ñaan borom bi subhaanahu wa mu dajale ñoo guddi gi nga xam ne moo gën junniy weer te lépp loo xam ne digg ko ci ak yiw mu dëppale ñoom moom xam ngeen ne guddi la goo xam ne noonu ma ko waxee ci tàmbali bi tanazzalul malaaikatu wa ruuxu fiiha malaaka yi dañuy wàcc ànd ak jibril alayhi salaam di ñaanal jullit yi di leen jéggulul suru borom xatta matlaayil fajr loolu mbokk yi lu rëy rëy la kon nag yàlla ñu yàlla dajale ñu moom di ñaan sunu borom koor gi ñu àggale ko jàmm di ñaan sunu borom nangul na sunu koor جعل نمبول مرتشرتي وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام الله عليكم ورحمة الله